jaar ku ne euh, da ngay am yenn teggin yoo xamante ni moom lañ lay euh, dëxëñ mais euh, dañoo ci bi ñuy def recherche ci yow dañu ñoo wax ni bokkoon nga ki nga xamante ni mooy suñu actuel njiitu réew classe wala école wala parcours mun nga ci ñëwaatal ci loolu. waaw na naam son excellence lay wax. parce mhm. que il faut nga am respect. oui ci institution yi. effectivement. c'est un homme que je respecte beaucoup. Mhm. parce que yàlla. du def neen ci nit mhm. donc euh, ci màggaayam maa ngi koy nuyu bu baax ñu koy wax euh, depuis son excellence de président Macky Sall mhm. yàlla def na ci ay parcours ci samay parcours yàlla def na ñu daje mhm. euh, muy Kaolack ñu doon ko wax lycée Gaston Berger ci jamonoom d'accord léegi après tout d'un coup avec les les les états généraux de l'éducation nationale après actuel naam boobu fekk na man génn naa sax génn nañ fa. Mhm. actuellement ñu koy tuddee c'est lycée euh, Valdiodio Ndiaye. Mhm. foofu en classe de seconde le son excellence je dis actuellement Macky Sall. Mhm. ci njàngam tase nañ foofu au lycée euh, soixante euh, dix neuf en quatre vingt quatre vingt un. on a fait la seconde C. Mm-hmm. et la première après la première C. d'accord tey lan nga ñu mën a wax euh, ci moom ci boo xoolee jamono ji ni euh, contexte politique bi mel euh, xiiroo beeg ŋaayoo bi bëri opposition pouvoir chaque jour muy am ay tiraillement ba des fois di dem ba ci am ñu fiy ñàkk seen bakkan tey boo ñuy ñëwaatal ci la personne du président Macky Sall ngeen boo jotoon bokk classe loo ñuy wax ci moom. waaw ça c'est une très bonne question parce que loo xam ne la ça touche à tout le monde. loo xam ne comme ni Kolof Njaay du waxee raam mhm. ci ñàkk bi la jëm mhm. waaw tamit euh, boo fekkee taal boo xam ne mu ngi takk mhm. waxuma taal bu yàlla taal nag taal buy takk laa wax nga fekk kër goo xam ne mu ngi takk te nga xam ne sa mbokk jullit la te nga war koo wallu jéem koo fay moo gën loolu nag c'est une très question boo xam ne ci sama xalaat étant un fils d'un musulman. Mhm. nekk ci sama titre bi nga xam ne moom laa nekkee euh, nekk euh, sëriñ kokki mhm. mooy nga xam ne sëñ maam li mu fi nekkoon mooy jàmm ba muy sos kokki mu ñu koy xam maam sëriñ kokki Matar Ndumé Diop mhm. jàmm ak jàngal xuraan la fi nekkoon loolu bu ma duggee ci contexte boobu jàmm rek moo am solo tey lii foog naa ñépp buñ gëmee yàlla. Mhm. julli ci yonent bi sallallahu alayhi salaatu wa mhm. nga xam ne mooy gën ngi mbindeef. Mhm. ah kenn ku nekk loo jàpp rek war nga ko mën a bàyyi. buñ seetee ci exemple yonent bi. Eh, man ma maanaam jàmm rek moo ko taxoon jóg. waaw boo koy def lu ñaaw boo koy def lépp ci misaal am na ko doon def lu ñaaw. dend ak moom du ko tuur mbalit du ko tuur mbalit ba benn jour toog ay fan mu feebar ba mu feebaree yonent bi laajte ko dem seeti ko ca kooku bëgguloon koo gis waaye ba mu demee seeti ko après génn ci diggante bi kooku tuub na. Mhm. nekk jullit donc da ngay jéggale jégg euh, nit day baale jéggale. Mhm. le président de la république le euh, je le je l'interpelle. Mhm. étant une connaissance. ñu bokkoon Gaston Berger nekk fa. mu nekk nit ku baax nag. waaw sama diggante moom. damaa ñëw fii rek pour jàmm. Mhm. ci loolu question boobu loolu ci la bokk. Mhm. donc moom li mu war a def rek mooy mu jéem a invité l'opposition waxtaan waxtaan ci la lépp xaj. Mhm. bu defee loolu jéggale baale euh, woote opposition ñu waxtaan lim jàppoon mu bàyyi. opposition li mu jàppoon ñu coïncider ñoom ñaar ku nekk li nga jàpp foog naa ne point d'entente mun na am Sénégal jëm kanam parce que loolu yàgg na fi am naam. depuis mm-hmm. le président Senghor. Mm-hmm. képp dégg na président Senghor képp dégg na président Abdou Diouf moom mun naa jox exemple parce que ci temps liggéey naa lu bari au palais de la République presque nekkoon naa fa. temps Abdou Diouf temps Abdou Diouf. d'accord mun naa wax ne chaque jour fa laa doon xëy dafa nekk du def audience yeeg du def lu nekk. étant un photojournaliste. d'accord alors yaa ngi wax sànq ni que euh, doon nga jàppante pale lu bëri et que président Macky Sall c'est une très bonne personne loolu nga ko xamal mais tey boo defee euh, différenciation par rapport aux différents régimes yi fi jot a jaar euh, régime Ablaye Wade Abdou Diouf ak Senghor ba ci moom régime am tey boo defee comparaison est-ce que gis nga ni am na benn changement radical bu am ou régime yi pratiquement ça se ressemble. waaw naam comme ni nga wax aussi effectivement ku nekk euh, ak sa temps. Mhm. ak euh, li ngay dajal. Mhm. ci askan bi. Mhm. donc mun naa wax ne xaj na tamit boobu population bi Sénégal tollu woon 17 millions million était à 2 millions. à 3 millions à 4 millions à 6 millions. waaw président bu ñëw rek xaj na da fekk population bi doublé. de deux millions ou bien de trois millions et quelques. Mm-hmm. jamono Senghor donc mun naa wax ne j'étais jeune. Mm-hmm. mais j'ai commencé à faire les reportages. Mm-hmm. ba euh, maa ngi rappelé wu le dernier voyage du président son excellence Léopold Sédar Senghor à Kaolack. mu doon dem di inauguré Ndiabel keroog maa ngi war a def defi woon cours. au lycée Gaston Berger à 16h mais comme Senghor comme il respectait le temps et tout. waaw maintenant dinaa parce que il devait venir à 15 heures. mais mhm. naa def def reportage bi à 16 heures ma dem jàngi effectivement ne ko à 15 heures 15 heures 2 xaw ma 3 ci l' avion bi agsi. Mhm. muy nuyoo ba nuyu ma sax ma nuyu ko mais j'ai pas mené la photo je pense que je l'ai gardé toujours. d' alors donc euh, nuyu na ma dem mais mun naa ne temps yi tamit jàmm amoon na. Mhm. jàmm amoon na la vie était tamit très moins chère. jàmm amul actuellement jàmm amul la vie est difficile. ah la vie <laughs> maintenant. Uh-huh. boo ko commencé ci Abdou aussi la vie n'était pas si chère parce que le litre d'essence coûtait ba jusqu'à deux cent cinquante fonna si ci jamono yi muy dem ba deux cent vingt cinq gasoil ñu ñëw nag Abdoulaye foofu la affaire yi commencé chuter. Uh-huh. avec Abdou tamit les socialistes le pays tamit vraiment les gens. ne pleurez pas comme maintenant. Mhm. ñu dem ci Abdou Diouf euh, ci Abdoulaye Wade aussi le son excellence de président Abdoulaye Wade bon la vie était si chère mais les affaires marchaient encore plus. Mhm. donc doo ko sentir. Ouais. les affaires marchaient nit ñi ñu ngi doon les plus méritants gagnaient encore ce qu'ils devaient gagner. Mmh. offre yi da mën a liggéey nga liggéey ti gañ. Mhm. ñu bari xawoon nañu ko ragal mais là aussi. Euh, ça a commencé tamit que euh, à montrer que il faut bien travailler travailler travailler comme mmh. il disait mhm. aussi travailler donc là aussi euh, les affaires marchaient on mhm. ne pas mhm. bon peut-être avec mon ami actuellement le président Macky Sall, les affaires sont dures boo génnee vraiment nga xam ne actuellement je sais pas qu'est-ce qui ne marche pas mais actuellement vraiment ça va pas. Alors, ça va pas. Selon ah, vous, c'est dû ah. à la, une mal euh, gouvernance ou bien euh, dû au fait de, du contexte actuel économique qui fait que la vie devient de plus en plus bon, chère. Bon, mën nañu wax lu rekk mi ngi ci mën nga boole lépp boole ko le contexte actuel ya y problème des guerres comme on dit encore le problème euh, de l'Ukraine mais man loolu yëpp peut-être man gëwuma ko. peut-être c'est un mal gouvernance peut-être waaw ce que je pense. d'accord ce que je pense daal je pense daal seetaat doxaleen réew mi. Mhm. nu muy doxee surtout nag euh, à encore beaucoup plus euh, investir mhm. dans l'agriculture. dans l'élevage. Mhm. jël jeunes yi seet plan boobu nag comme je suis pas aussi un grand spécialiste euh, de projet. mais je pense que loolu bu ñu seetoon nu mu koy gën a mën a doxalee mu gën a ñoŋ je pense que réew mi dina jëm kanam. jéem a mm-hmm. seet agriculture bi. Mm-hmm. ak élevage bi jéem a seet nu ñu koy doxalee. parce que on a de l'eau jéem a seet système boobu bu ñu ko doxalee fanaan dans deux trois ans Sénégal dina changer parce que il faut nga gëm sa bopp. Mm-hmm. boo gëmee sa bopp rek je pense que loolu mun na dox réew mi ba problème yi ñu nekk surtout les jeunes les jeunes les petits ba am euh, maîtrise am dem am euh, lu nekk du jàng du jàng am lu nekk mais léegi rek laa ci waxtaan ak sama benn jigéen. Mm-hmm. bu nekk kaw la son fils jàng na jàng na jàng na depuis cinq ans mënut am liggéey. il y en a pleinement. d'accord loolu war nañ ko mën a. seetlu mais mais vu que c'est votre ami et que jot ngeen am yu ngeen partagé. est-ce que mm. vous avez essayé de le côtoyer ou d'essayer de le voir. pour au moins euh, am yoo ko dénk loo xamante ni xëy na sa xalaat bu ko defee mën na jëmale réew mi kanam. waaw parce que man je suis comme ni nga ko waxee mbokk nit mhm. je pars partout fépp fu ma dem y a des li y a des parenté. Mhm. monsieur nga la commencé ca suñ ko kii Maxtaan Ndoumbe ba nga ñëw ci Cheikh Ahmadou Bamba. bien mhm. vrai que je suis un fidèle kër goo ca dem rek c'est nous dans dañ ci xam. nga dem ci El Hadj Malick foo dem rek. Mhm. mbokk ni mais nag man ku mënoon nekk conseil am la mais c'est domage mhm. ku ko mënoon du ko wax dëgg li ma gis ci du ma seet sama intérêt loolu ku ko mënoon laa nekkoon conseil am di ko wax dëgg. Mhm. te muy nangu li ma koy wax. mais mais malheureusement j'arrive pas à le côtoyer. tu arrives je pense dans le temps je l'ai écrit une mais Et pourtant, quand on se, on se rencontre, on se voit fraternellement. D'accord. Amicalement, mais doit ben problème. Mais après, j'ai essayé à même cinq ans en avant, mm ou bien même plus 15 ans avant, ou 10, 16 ans avant, j'ai cherché à le rencontrer, étant président, euh, premier ministre, étant dès le départ quand il était ministre de l'énergie mhm. on se voyait bien même ses campagnes à Fatick on a été toujours ensemble d'accord à Fatick quand il était ministre de l'énergie je peux dire que je l'ai fait même beaucoup de reportages et commencé ànd ak Macky defar Fatick il a beaucoup de tableaux yoo xam ne maa ko defar mhm. ay tableaux de bâche maa ko defar mais aujourd'hui ah. vous avez du mal à le côtoyer waaw quand il était au ministre de l'intérieur je dans son bureau comme y a des photos même yoo xam ne on est ensemble. d'accord on se voyait il on s'appelait même au téléphone. mais maintenant c'est difficile de le voir. Mhm. bon mën naa ko comprendre nag mais comme li ma wax rek mbokk ñaar a koy dox man daal en fait mon maximum. Mhm. mais nag nit nit la moom xam na man xam naa peut xam nga nit tey boo gisee nit nga xam ne kii c'est un ancien promo. war nga ko mën a woo ne ko eh kaay. waaw mhm. ah, comme il a l'habitude de m'appeler Mbacké donc je pense que pour gis ma étant président la pour convoquer nit l'enseigne tu as toutes les informations d'adresse koo euh, soxla mun nga ko jot. d'accord donc c'est difficile de le voir te ku mënoon nekk conseil am la ma koy wax lu bëree bari loo xam ne je pense que am na ñu nekk moom jege ko mënuñ ko ko wax ca man mën naa ko wax. d'accord alors ci logique gu boobu la ñuy taxaw euh, gis nga ni euh, jamono ji mu am benn mën nañ ne. Euh, deux poids demi mesure noonu la ko sénégalais yi waxee entre guillemets par rapport à la justice bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci ki nga xamante mooy Ousmane Sonko et en parallèle aussi gis nañu récemment Idi génn na ci moom euh, ba ñu euh, am na ñaari ministre yu ne bokk ci parti réew mi ñoom it aussi génn nañu ci seen fonction de ministériel bu ñu yoroon alors tey soo ko doon conseiller par rapport ak deux choses yooyu noonu lan nga koy wax. bon li ma jëkk conseil surtout ak euh, Ousmane Sonko ñu bëri dàpp ni il y a deux poids deux mesures au niveau de la justice man jàmm rek dëgg ku nekk sa xale taala je suis pas ni Sonko mhm. je suis pas ni Macky Sall ki fi nekk la fi yàlla teg mhm. man bu may ànd sax mun naa ne kooku la yàlla kooku la war a ànd surtout étant donné que mhm. mu nekk sa promo ngeen xamante. effectivement mais jàmm laa koy ñaanal. Mm-hmm. mais nag euh, aussi loolu yëpp aussi ci sama gis-gis. Mm-hmm. nañ ko teg ci yoon rek. ci mm-hmm. dëgg ak xalay taala. waaw te nit ñi ñu ngi wax ci man tey mun naa wax parce que nekkuma ko tuuti. je suis issu d'une grande famille. Euh, d'intellectuels. de 1700 à maintenant. Mm de génération en génération. Mm je pense que war naa am sama xalaat. Mhm. jàmm jooju daal laa bëgg mu doxal ko. Mhm. charge yi ñuy def ak lépp lépp lépp nañ ko teg ci jàmm rek. Mhm. waaw parce que ay nit lañ dëgg xam nañ ko waaw seet comme ni ma wax ci waxtaan rek seet ñu xool nu ñu amee jàmm ci réew mi parce que bu ñu amee jàmm rek à commencer le premier chef moom le président Macky Sall. xool nan lañuy ñuy waxtaanee ba trouver jàmm ba fitna yi wàññeeku fitna li ñuy def ñu wàññeeku. mais ñi jàpp ni jaay doole la da ngay euh, looy looy sa gis-gis par rapport ak loolu jaay doole dafa am ci réew mi. Hmm. wa ilaa euh, ñu ngi gouverner normalement. bon donc côté comme ni ma wax ci tourne gauche à droite. Hmm. dégg ñu ne jaay doole la bon nit ñu bari daal ci sama gis-gis boo génnee je juge mais tamit li ñuy wax la majorité l'emporte comme président de la République mënoo ko jot mais boo ko jotoon wax ko lu bari mais d'une grande partie nga dégg ñu ne ñu bari dañ naan man damaa yërëm Ousmane Sonko. Mhm. day jiñ koy jaay doole. Mhm. donc tamit je pense que loolu tamit war nañoo seet ni ñuy réglé waate situation bi jaarale ko ci yoon ba nga xam ne réew mi day nekk ci jàmm ba nga fitna bi am ci actuellement ci réew mi. Mhm. ba nga xam ne ñëpp dal ñu gën a gëm yàlla ànd parce que a ñun ñoo fi nekk tey mais suñu ay doom suñu ay sët dañoo war a ñëw. Mhm. waaw pour continuité bi. d'accord donc loolu war nañ ko seet.